Coly fay numéro de ma nga noonu moo war a bëreeg Ada tey fekk nañ ko fii ci ndogu Baye Mandione mu nekk kilifaam nekk lépp ci moom Coly maa ngi lay nuyu baax di la si waaw maa fay waaw maa lay fay. maa lay fay waaw. fay rek nga ah, fay. jërëjëf ko di bëri dina maa ngi yi tudd maa ngi nuyu caare gi ma dëkk. caare gi nuyu di leen sant di leen gërëm caare jàmm gan si Mbaaw Lamsar. Petit Mbaaw Fass Mbaaw Grand Mbaaw Zang Mbaaw gi ma dëkk maa ngi nuyu ñëpp di may yeewoo laa dëkk fa laa yeewoo. waaye mais mënuma am daal. waaw parce que caare moom sama lépp fi laa juddoo fi laa yoroo fi laa waaw. maa ngi ci koor waaw maa ngi gi waaw. bu baax. a bi nii yaa ngi woor. ah maa ngi man woor tàmm naa ko man man dama dama dama yàgg a woor de. parce que kat damaa ah, na loolu nga gis rek mais woor mo maa ngi koy def moom. mais yow gis nga ne asaka day génn. ah kay bañ a génn. Hmm. waaw mu ngi génn baax sax. léegi d' accord naa ñaata fan la ñu am. ah dëgg fa yàlla ma xam ne contrôlé ma ñaata fan en tout cas mais daal dimanche. ah doo saan nooy def mënoo mënoo woori calculer xanaa booy woor moo la fi benn affaire nga ñiy woori calculer day mel ni jour day arrière si ñoom wóor rek fàtte. waaw mais actuellement dégg naa ah, fan de <laughs> waaw non tey la ñaar fukki fan si Ibrahima. tey ñaar fukki fan Cheikh Ibrahima non tey la ñaar Cheikh Ibrahima moo tax ma jàpp ñaar fukki fan tey ah. waaw tey ñaar fukki fan Cheikh Ibrahima. booy woor war a préparer combat ndax le 26 incha allah ci nga war a bëri Ada mu tombé koor gi nan nga koy waajee ak entraînement yi noo koy def. ah entraînement yi maa ngay def mu rek deux séances rek. deux séances deux def ndogu essence yi nii su dul woon suñu ndogu grand yi day essence yi salle muy fekk hmm. fa yàlla parce que dañuy naan café lekk tuuti pain. dem saal bu ñëwee a àggal suñu ndogu bu ñëwee nelaw ba ay deux heures trois heures ñu wàcc dem Maaro wala ñu dem diin. Maaro wala diin. demaat Maaro wala diin waaw. wala nga physique. contact chaque jour ñu ngi si chaque jour. combat bi nga am xam nga ma xool kañ laa dala contact. combat Siteu Papa Sow. Hmm. wax dëgg fa yàlla ku dee sa bàmmeel si laa commencé contact ba tey. ba tey teggi ma tànk ba tey teggi guy gi. jóge fa dal si combat ñoom brise de mer brise de mer waaw. surtout da ngay ma sax wóor na sëñ Bamba. waaw. da ngay bëre Ada keroog nga ñëw ñu gis beneen kulifay bu bu ñu xamul bu ñu xamul woon wala bu ñu xàmmewul woon nga ñëw takk say masque jël say mesure micro yeeg affaire yeeg bagages yeeg yëpp nangu woo ko laal Ada Fass a toll foofu wala bis bi moo la toll foofu. non non micro yi vraiment nga doon laale kon xam naa. wóor na sëñ Bamba non man nag maa xamel affaire de. làmb ma yéen de làmb tax ma mayatu nit mais c'est que mu ne ak ni ngay moom. parce que ki may làmbal mbër mi may bëreel ah moo toll noonu moo tax te foofu la tolloo moo tax noonu te foofu la tolloo moo tax may làmbee moom noonu mais mu na làmb yoo xam làmb wax la noonu làmb wax làmb ji du làmb wax. lu wax ci yow. ci man bokk. adversaire bi dina wax. non farfos. dina xeex tamit. mën koo bañ déggoo. billaay wala talaa balaa ma mën am lu ma neex mu tàkk sama kaw pétard. une deux kang kang. hypercure roof croisé. yëpp. bu la ko defee nga def noonu. <laughs> man àgg ci loolu rek. man àgg ci loolu. yaakaar day saako njëkk a xeex la. billaay. wóor na sëñ Bamba. nga gis barki démb Jokal jaar ragaloo mu jaarale. ñoo ñëw ay champion lañ. yàlla moo tudd seen jël la foofu rek. mais booy bi mënu jaar la foofu. dëgg fa yàlla moom ma jaar la fa. waaw loolu kon moo ko waxee amul kon moo ko waxee jarul ñuy bëre. xam nga des fois ngay football teg penalty na góol bi demal fii laa koy def te foofu nga koy def te góol bi du ci mën dara. ah dëgg fa yàlla moom loolu lu may wax fii moom nan ngay pegg génne di wax sa plan balaa nga doo fekk njiit la ko. xeex ak bëre la ci gën a moom mën na lépp. yow nag. man mënuma dara. moo mën lépp Ada Fass moo mën lépp Ada Fass moo ëpp galaaj moo ëpp doole moo dàq bëre moo moo ëpp entraînement bàyyi ko lépp ba jour ji billaay boo ko boo ko moo bokk lépp rek moo moo ëpp lépp Ada Fass moo ma dàq bëre moo ëpp doole moo ëpp galaaj moo ëpp entraînement moo ëpp mbooloo moo ëpp lépp na jël lépp jox naa ko lépp. combat bi daa mel ni da nga koo fonk nag xaw ma fonk bi lan la combat bi da nga cee jël say mesures yu garaaw. waaw c'est normal xam nga la moom la war a loolu ñi ma war a bëree ñoo nangul bëri man. man mënuñu maa génne làmb ji. làmb ji barki alxuraan karim mbëri ni ñuy toog ci làmb ji di kon ñun du ma bëri ñoom taw xam na ne billaahi man li ma fi def sax ñi ni wooyee roi ñu combat yooyu man à part Papa Sow lamb ji à ma am ñi ni wooyee roi amuñu ko waaw. maa lay jaajëfal. waaw maa lay jaajëfal yow jàmm rek. xam naa dinaa ñëw jël xaar incha waaw. maa ngi waaw.